إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بالوجه المصطفى waaw jërëjëf Cheikh Mouhamadou Lamine xaside yi nga xam ne moom la sëriñ bi def di ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yooyu xaside yu bëree bëri la te mooy mel ne muqaddamatul am daax مقدمه الامداح في مزايا المفتاح القصيده تاج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم تاج آه، مو تي قصيده مواهب النافع في مدائح السافع قصيدة تاج رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب القلوب لعلام الغيوب لوريت قصيده تاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لو من جالبه المزيات ودافعة الرزيات في مدح خير البريات ma bi tàmbalee Hamad Souleymane. yooyu xëy rek tàgg la gu rafet. te yéeme. lu mel ne Fathul Fattah. maanaam tagg nag boo seetloo xasida yi nga xam ne tagg tagg bu dara raxut la nag mooy ya jiitu daanaka boo seetloo. maa njëkk tàmbalee assasine ba bi mu ñëwee fii Touba. am na diiwaan yoo xam ne mel na li nekk ci diiwaanu Saadatul Muridina. maanaam fa futuhaat yooyu Fathul Fattah. fii Madhil Miftah. فتح الفتاح في خدمتي يونيت خير فتح المتاع أمنا أك فتوح المكرم في أمداح المكرمي من رأيه يبي بشر يب رأيه قام قطوب على أك الميمي يا أنونية نونية يبرة برة لا يجيب خشري خشري تقبل عن خانة تقبل موتى جنوفس أنا دشة وق جمي يرن تبي صلى الله عليه وسلم أكاي ملوم أكاي جيكوم أك جنم أدنى أك يا تخاو ak li gëna a ci dunduk yonente bi ci ay jaar-jaar mhm. ak itam nak wax nak wax yu kawé yo xamné mbirum bir la moy moy mhm. rasulullah ni mu nek leeru kese nga xamné mhm. leeram gogé ci la leer yépp euh, soxé ko Sëñ doon jëm yo xamné bërepp bu mu mës jang rek tag na fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom wax na ne tag yonente bi da dugg ci leppam wax na ne أثني على المصطفى والمدح رافقني في كل شيء maanaam tagg yonent bi bu doon jëmm daa ànd ak moom ci bërëb yëpp ak ci lépp daa dugg ci léppam wal watxu wal wal madxu raafaqani fii kulli cheyin fa xablul wasli qad judila fi ne ci misaal rek ndakaaru nga xam ne jaar na fa gis nga mu wax ne lil mustafa wala ila lil muntaqa wajjahtu fi ndakaaru madxan bihi faaraqanil makkaaru fu mel ne ndar jaar na fa itam foofu it wax na ne ila nabiyil mustafa inda ndari wajjahtu madhan qad azala kadari konakiri xam nga jaar na fa foofu it wax na ne lil mujtaba madhi lada konakiri kama hadaniya bila manakiri bërëb bu mel ne garambasa garambasa jaar na fa moom it wax na ne hadaniya alladi adu bi xabasa anni bi madhil barri fii garambasa tagna fa yonte sallallahu alayhi wasallam nekone liberville noonu capitalu Gabon ci jamono yi gis nga jaar na fa way gis nga da wax na ne ila yaqada mashtaha kullu wali madhi xayral xalqi fii liibar wali muy dem rek beurep bu ma sa jaar rek bu ne jàng rek tagna fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam bim nekké ci non yàlla yi rawatina wax na ne lil mustapha wajjahtu inda al mushrikin madhan bihi gada idaahu muhlakin fa noonu yàlla ya tagg na fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ne sax tagg yonente bi moo ko jural jafe-jafe yi mu am ci ci dund gi yëpp <laughs> ndax ba muy dem ci géej gi mm-hmm. tubaab yi ci seenu mën a tooñ mm-hmm. ñu tuumaal ko tuuma yoo xam dara saxu ca mm-hmm. tasaare mbooloo mi nga xam ne moom la àndaloon génne ko réew mi dafa ne xusuur yi xalat wal ahlu an nii tafarraqat li matxi li matxi alladi anhu lmadihu qasiru tagg yu ma tagg yonente bi te mu wóor ma ne sax mënumaa jot dayo ba lim ci wax ci tagg yonente bi moom ay téeméeri junni bayit moom moom moom da koy ëpp te téewul mu wax ne laakin laakin wana nu mu ko wax sax wax na ne laakin ون الدهر عن أمداحه الشعراء وني الأسابع عن مس لجرم سما li feeg nit mënta jël loxoom teg ko ci asamaan si mënta àgg ci dayob mën a tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne man lott naa ci wax na ne lakin ajastu amal tamastu wa ma madaxtu ka shuaraa yi xaara midaadi xaara fu aadi ah ma amoon yëpp bind naa ko ba mu jeex <laughs> sama xelit la ma ca doon la lépp ci xalaat wax naa ko ci moom ba ba xel ma ngiis waaw ah. ah. lakin ajaztu amal tamastu wa ma madaxtu ka shuaraai gaara midaadi xaara fuaadi an madi haadi budalaay mi ngoog waaye ànd loolu lépp itam mm-hmm. tagg yooyu ni ma ko waxee moo tax mu wax ne mm-hmm. قصوري خلت والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح قصير ما تقوي لما تي بغ دغ دغ اك فما تي اك اك لما تي ييني صاح منو مكو واخ لب منو ما تي اك واي اندك لولو تاغ ووي جورل نما سما كير ييب غنت آه، سما جابوت غيب نيو تساري لين تي لولو كون تاغ نوني لا لا لا لا لا لا لا لا لا gis nañ itam lo xamni mat na junj. te moy suñ sun borom ci alxuraan. amna ñenn ci ñi wax ñi tag ñi nga xamne ñoy ñoy ñoy ñooy way amna ñum ci wax seeni sik wax ne wa yatbauhumul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna way dafa sété wax illa alladhina amanu wa amilu salihat wa dhakaru llaha kathiran wa intasaru min ba'di ma zulimu lolal nak sëñ moom ci ñii suñ borom set settee ca mbooloo moomee ca la bokk moo tax mu wax ne lam yi nii gawaayatun aw hayamaan fii kulli waadin aw firan wali amaan am na kaaraange gi suñu borom ci génn na ci mbooloo moomee nga xam ne moom la suñu borom wax seeni sikk ci ñoom lañuy wax yàlla taxut te moom li ñu wax lépp ci ngëm yàlla gu mat sëkk la tege ak bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak jàngale diine suñu borom ji loolu rek mooy ay waxam te nekkoon waaw jërëjëf sëñ Ahmadou mu mel ni nag tagg yooyu ni nga ko waxee euh, ci la ñu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké woo ci la woo jàngkati xasida yi ci la woo ñi nga xam ni dañ koy yëkkati te seenu njàng wér ak ñi nga xam ne dañ koy durus ngir àllarba incha allah war a doon benn wala ñaari fan ci weeru muharram yi ñu jëm dëppoo 11 ci weeru août ñu daje ci dëkk bu tedd bii di Touba jàngkat yi yooyee nga xamante ni dañoo nosu ànd ak comité bi nga xamante ne mi ngi ànd ak ñoom di jokkook ñoom ci mbooleem barab yi nga xam ni fa la ñu war a bàyyikoo ak fa ñu war a dal incha allah ngir bu ñu ñëwee ci bis bi kenn ku nekk ci ñoom defee ko ni ko sëriñ bi bëggee mu mel ni kon euh, ci loolu la ñuy daane rek suñu Ahmadou kaddu yi soññee yi ñu ciy def soog a tàggoo ñu soog a ñëw ci ci kuréelu xasida bi. waaw loolu de moom dañ ci sant yàlla rek. Mm-hmm. ni ma ko waxoon barki dem ci sunu jotaay boobu yi. Mm-hmm. te mooy ñaari tawféex daje na ci. tawféexi jàng xasida ci bis boobe mhm. waaye tawféexi ndigal li ci sëriñ bi joxe itam. te muy lu rëy ndax cheikh Mouhamadul Muntaqa mooy ki fi toog toogaayu cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu. ndigal lu bàyyi ko ci moom day amee maanaam lu bàyyi ko ca cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu te. jox la ndigal ci lu ne am na solo waaye jox la ndigal ci zikr ah. loolu mboolem nit yàlla yi ak ñi xam mbirum suñ borom ak ñi cee dox jëm xam nañ ne lu rëy la ndax ñoom duñ def dara ci lu dul ndigal mhm. maanaam duñ duñ jàng dara wala ñu jëfandikoo dara ci lu dul de dañ caa am ndigal moom la sëñ bi doon junj ne laa tafaalu cheyan bi xeyri izni mhm. fal isnu chartun fi qabuli chani maanaam nangu suñ borom mhm. ak jeexiti tudd yàlla Euh, dafa aju day aju léeg ak euh, ak dox sa diggante ak sikk yi nga xam ne mooy feeñ léeg-léeg mhm. ci ñi ci ci ñi jëfandikoo yu mel noonu loolu day feeñ léeg-léeg ci ndigal li moo tax mhm. ndigal li am solo lool moo tax sëñ mag bi ni ma ko waxee keroog sëñ mët lam ñu dagana wax na ne ku ma saa ñëw ci moom mhm. yor weneen wird da lay wax ne ñu defal la ci ba nga man cee jariñu mooy dala ciy jox ndigal <laughs> kon ndigal lool yi lu ci am solo la euh, ni ngeen ko waxee nag sëriñ bi lam ci bëgg mooy bu ñu agsee mhm. ñu def ko ci anam gi nga xam ne moo neex sëriñ bi dëgg la sëriñ Saliou Mbacké mu baax ma mhm. gàmm xam nga buñ ko mësaa def day wax ne mhm. sëñ bi kat day wax ne ta'zimuhu bi sunnati yaquudu naaril jannati mooy def ko ci nu dëppoog sariya ak nu dëppoog sunna si yonte bi sallallahu alayhi bu dee bis bii nag la ca dëppook sunna si bi mooy ñu defe ko ñu boole ci teggi ni tudd yàlla te mooy ànd akook laab ànd akook set ànd akook dal anda kita eh, eh, mana banyak bañ a am eh, jenn kër-kër rek ah, def ko lepp ci ay teggin ndax teggin moy ruuxu ak mourid mhm, kenn ko ne xamne yitte ji mom manam mhm. nek ci bërëb bo meuna ne rek ah. bo duggee Touba rek bo fofé mhm. di jang see ci ndigalu serigne bi fo meuna ne rek nga nek fa baña dengam dugg ci yeneen lu may lu may li nga xam ne moom la ñu ci defloo rek dañuy ñaan yàlla nangu lépp rek daree sëriñ bi te yàggal fi ku baax ki ba yéeneem yëpp mu mottali ko ci darajee sëriñ bi